bon maay nuyu sénégalais yëpp di nuyu suñuy kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di nuyu ñi nga xam ne mooy ONG bi nga xam ne dafa juddu bees nekk ONG boo xamante ne day défendre képp ku jigéen boo xamante ne gars dañ laa neewal doole wala ñu violé la wala nga am antécédent viol boobu nag mu ngi juddu au niveau de l' international gars yi contacté ma ak sama engagement pour ma représenter leen Sénégal. ak ñi nga xam ne ñu ngi ci ONG bi mais comme borom restaurant bi dafa exigé woon que bu mu am ay nit donc il fallait que mu demee nii mais di wax ne ñun tey lu ñuy tax a jóg mooy xeexal jigéen parce que ñun ay waaj suñuy waajur dañoo sonn ci ñun ñun seen monde bi jigéen moo ko yor jigéen moo ñu jur moo ñu ëmb pendant six mois pendant neuf mois autant pour moi ñoo ñu indi ci monde bi tete ñu pendant trois ans continuer di def ci ñun ba ñu mën a tekki donc tey suñu gisee ne da am homme politique boo xamante ne dafa dafa dafa nekk koo xamante ne da da activité politique ñu accuser ko viol muy woote ne nañ ñi gën a xeex nañ nit ñi gën a reyante ndeeg moom te moom jigéen jur ko waroon na am sax gàcci as tuut wax ne comme man jigéen moom a jur naa ñëw dem wuyu ji parce que man am na ay doom yu jigéen am na ay sër yu jigéen am sama yaay jigéen la ki ma indi ci ci àdduna jigéen la moo mu war a ormal jigéen may wax nag ministère de la ministre bi nga xam ne moom moo yor la femme ak jëpp jigéen boo xamante yaa ngi société civile yaa ngi société civile yaa ngi Sénégal ngeen war a ñëw yéen ñëpp ngeen booloo xeex ba aji sar bi nga xam ne xale bu jigéen la nekk ku xamante ne xamagu dara ñu bëggoon ñu ko doon utiliser ci ay yoo xamante ne vraiment vraiment rafetu ci ci ci ci ci waxin waxit rafetu ci jëfin ñu koy utiliser boolu ci xew-xew mu ne diw def ma ëmbal diw def ma violé ñu koy saaga di koy wax lu ne loolu dañ koy ñaawlu bu fu ñaawlu yem parce que nit dañ koy dañ dañ koy wormal nit dañ koy jox dañ koy jox cër nit daa am loo xamante ne waroo ko mos a wax ci deram aji sar nag suñ mbokk la parce que suñ mbokk Sénégal ñu ñëpp moo ko bokk Sénégal kenn mënu ko xar ñaar Sénégal nag maa ngi ñaan képp koo xamante ne jigéen nga nekk fii Sénégal ñu ñëw di lay ñaan di ñaan kilifa dine ñu wax Ousmane Sonko mu bàyyi caaxaan na bàyyi fo ak caaxaan yi muy def ay visite yëpp jaru ko lii du politique lii sénégalaise ak sénégalais ñoom ñu am ay problème ñu convoqué ko ne ko da ma ëmbal da nga ma violé ngir yàlla war rasul na dem wuyu ji bu lim ñi fi xaw a ñi fi as ñi fi dee ñi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xaral arjana te yàlla na lii bu fi amati fii Mamadou Dia woon nañ ko tëjoon nañ ko kaso coow jibul fii Abdoulaye Wade tëj nañ ko am maintes dara ma sa fi xew am na ay kilifa dina sax yoo xamante ne def nañ prison yoo xamante ne mënuma wax seen tur parce que jox naa seen cër jox naa leen cër ak jox naa seen cër seen seen seen doom am nañu am ay ak ay ñeneen ak ñeneen Sénégal yoo xamante ne dañ leen accusé viol ñu tëj leen donc Ousmane Sonko tey suñ ko accusé viol moom il est présumé innocent kenn waxagut ne moom la wala du moom mais na nangu ay test d'ADN nan nangu dem wuyu ji justice parce que mënoo di laaj réew te yow wóoluwoo justice di sàgg ay magistrat di sàgg ay police di sàgg ay gendarmerie di sàgg képp koo xamante ne yaa ngi fi mu ngi fi mos nañ mos nañ am ay sàgg Ousmane Sonko ku mel noonu nag suñ ko accusé lii yaakaar naa ne moom ci boppam moo war a dem setal boppam même fekkee ne deful mu dem setal boppam xam ne fii état de droit la ñun dañu respecter gendarmerie respecter police respecter armée respecter ay magistrats respecter justice parce que dëkk da ngay respecter justice mais nag mun naa nangu d'une part mënul respecter justice parce que nit ni nga mel rek moom nga yaakaar noonu ñëpp noonu lañ mel soo jubul doo mës a gis ku jub soo jubul doo mës a gis koo xamante ne mu ngi def lu lu jub soo baaxul doo mës a gis lu baax à chaque fois ku mel noonu ci ay invective ci arrogance ci saaga wax lu ñaaw comme ay am ni ñu koy defee di ak di menacer ay journalistes de mort di menacer man mi nga xam ne maa ngi wax sax man on m'a une fois menacé de mort te ñëw nañ ba bëgg a taal suñu kër donc mu nekk loo xam ne loolu lu la ñun nag man li may ñaan mooy ne kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñaanoon nañ ñaan Ousmane Sonko mu dem wuyu ji justice Adji Sarr sénégalaise la comme ñépp ñun nag duñ nangu ñu sacrifier Adji Sarr justice bi day am Sonko waat wala mu ñekk waat ñun suñ plateforme bi nga xam ne c'est la DF2V la défense de la défense des femmes victimes de viol ñun par nañ porte plainte ba fii cour de la Haye fekkee ne cour boobu noonu il est il est recevoir ce genre de plainte ñun on est parce que nous sommes représentés au niveau de l'international donc maa ngi ñaan képp kuy jigéen képp kuy yi nga xam ne dañ doon mbubboo mbub affaire jigéen bu koy protéger ngir yàlla war a nañ jóg nañ jóg il e temps ñu jóg dem défendre Adji parce que Adji Sarr waruñ ko bàyyi mu fragile suñu bàyyi affaire bi dem politicien da toog di toroxal jigéen du ci kenn du ci mën tous dinañ toog mbedd mi gars yi dafay utiliser ay jigéen kenn du ci mën dara parce que suñu waxee ñu ne ko Ousmane Sonko moo ko fi njëkkee te kenn kenn kenn waxu ci dara donc lii il faut que mu leer il faut que la chose tirée au clair la le vin est tiré il faudra que nit ñi naan ko il faut que saa waay dem wuyu ji justice ko kenn. mais nag képp koo xamante ne dañ la accuser rek da war a dem wuyu ji justice parce que fi dëkk bi dëkk pee la dëkk dëkk pee la te ay kilifa ñoo fi nekk mais jigéen nañ xam ne jigéen moo ñu jur jigéen moo ñu jur dañ ko war a sutral dañ ko war a protéger jigéen waruñu profité ci innocence am di koy utiliser te cas de yi ñun on est prêt maintenant à mener le combat jusqu'au bout ñun dañuy porter plainte duñ nangu mukk situation bi gars yi étouffé ko duñ ko nangoo mukk di àdduna lépp lu ci nekk nag ay allégation ay ay allégation Adji Sarr wax ko ci Sonko Sonko mosu ci addu na dem wuyu ji justice na dem wuyu ji justice justice mu ngi fi pour ñëpp na dem wuyu ji man lii laa ci amoon li ma ciy wax.